bu ñu àndee di liggéey bëgg nañ ku ne ci seen wet di leen digal di leen waxal dafay leen nii dafay leen nii dafay leen nële na ñëpp di ñëw amul communiqué bi yëg naa ko wala yëguñu ko yëglekat mënul passé communiqué rajo yi yoon wala juróom benn yoon defar lu juney lettre joxe ko kon ku ñëwutam itam fàttewuloo ko def nga li nga mën na ñëpp di ñëw nañu nit ñi di jàppale ci gàmmu gi gàmmu gi moomu ma ko keneen moomu keneen moomu ko ñëpp ko bokk waaye nag maxtaare na ci kanam ñu ngi ci ginnaawam bokk di liggéey ndax nekk ni ci kanam maxtaar pour mu nekk ci kanam ñun ñu ne ci ginnaaw ni ma ko mën a firee mu ngi mel ni dafa am benn sëriñ bu yoroon ay taalibeem yàlla ji taw mu jox taalibe yi ñaari saako kem mu ne leen dem leen ngeen konk ko ñu ne ca jamonoy konk la woon taalibe yi yóbbu ñaari saako yi bañ demee konk benn saako bi biñ ñëpp see indi benn bi sëriñ bi na leen jeexut ñu ne ko déere mu ne leen lu tax ñu ne ko ñun lii lañ man ca suba sa mu ànd ak ñoom bi ñu demee ñu konk ñaari saako yi sëriñ bi na leen yéen benn man benn taalibe yi ne ko lu tax mu ne leen yéen ñëpp bi ngeen àndee mu benn ngeen defoon ma ànd ak yéen ñu def ñaar kon kay man maa def benn bi loolu ànd gam àndoon ak ñoom moo leen ci poussé leen ci kon ñu ne ànd bi ñu ànd ak kii dana am fu mu ñuy poussé na jiitu rek nañ ko di seen rek buñ ko di seen daal lu ñëwtu dinañ ci jot danañ def luñ mën ak luñ mënul lépp waaw kon nag dafa xaw a guddi te wax moom wax la rek boo waxee li nga mën ñu dem ci présentation bi ki nekk ci bopp mooy alhaaji maxtaar ndaw ka ca mooy sëriñ haadi ndaw kooku moom sant nañ ko lool gërëm nañ ko depuis dimanche ba léegi mu ngi dema ko ñëw tey fii la yendu njàngam kaamil mi ci la newoon sëñ aadi sant nañ la gërëm nañ la gis nañ sa taxawaay yow li ma doon wax sànq yaa ngi ci ka mooy Seex Namet Tijaan Ndaw moom it moom lañ teg gàmmu gi ci loxoom sant nañ ko gërëm nañ ko heure buñ programmé ni ñu bëggee rek noonu lay defee keneen ka mooy topp mooy Mouhamadul Muntaqa Ndaw di doom ci Alaaji Moxtaar Ndaw moom it chaque année kasaalika noonu heure bu ne mu ngi ñëw léeg-léeg day ñëw sax ci daayira bi te dara du xew ka ca topp mooy Serigne Mbaye Thiam Serigne mbay Thiam moomu nag dinañ ko jox kàddu xanaa moom it mu xaw a gàttal tuuti rek keneen ka ci topp muy Tamsir Sakho dëkk Caaxu Séeri moom it ku yàgg ak sëñ bi la xaritam la keneen ka ca topp mooy Serigne Fallou Cissé Serigne Fallou Cissé moom it yàgg na ak sëñ bi lool keneen ka ci topp muy Taha Tambédou di jarbaat ci sëñ bi moom it gis nañ ko. kenen ka ca topp mooy sëriñ mbay saxo mo joge krab di di sama papa yalla mo ngi dogo dogal mu ñew ci jang yi waaye yag na koo bëgg sama papa Tidiane daan na fi ñëw waaye ren lu ñew mbay saxo mo ñew and ak delegation bu mag wa krab yangu ñu bari ñew nañ ñu nga ne tok moo sama mag bu ñu wax mbay bi tay drabe momit jang jàng yi yàgg na ko wajal ren la ko ci yalla dogo bolé sant nañ ko gërem nañ ko ak serigne Abdoulaye gay Cambérène 2 Jim Cissé Seydi Ababacar Ndaw moom it gis nañ ko mu ngi toog bi may bind liste bi booba newu fa woon waaye gis naa ko mu toog mu Moustapha ñoom ñëpp gis nañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen kon kàddu yi daal ñun loolu lañ ci amoon luñ ciy wax xanaa maa ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yëpp ci ndigalal Seydi Alaaji Mouhamadou Mokhtar Ndaw maa ngi nuyu daayira bi ak ki nga xam ne moo jiite daayira bi muy am sa dem te yàlla dogal ren mu wuute ko di nuyu ñi topp ci kawam ñëpp seeni góor ak seeni jigéen ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ci turu Seex Seydi Alaaji Mouhamadou maxtar Ndaw maa ngi sant yàlla bu baax da julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da sant Seydi Alaaji Omar Ndaw radiyallahu taala anhu da sant xalifa Cheikh Seydi Alaaji Mouhamadou Mountakha Ndaw di sant njabootu Seydi Alaaji Mouhamadou Ndaw sant xalifa Cheikh Seydi Alaaji Mouhamadou Bachir nga xam ne tey képp koo xam ne yaa ngi woyoo ndaw moo nekk sa kalifa moo nekk sa njiit ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla may ko fan wu ak wér di noyu njabootu Cheikh Seydi Alaaji Mouhamadou Ndaw gi fi teew yëpp la ko dalee ca ka mag ba ca ka mujj di noyu ñëpp di nuyu ñi ñëw ak ñi ñëwut ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare day wax ne maa ngi leen di siyaare ndeg yàlla ak rasulullah ak Seydi El Hadji Omar da jiital ci siyaare bi it ki nga xam ne man mooy suma lépp muy Seydi El Hadji Mouhamadou Makhtar Ndao mooy suma buntu ci Seydi El Hadji Omar mooy suma buntu ci njabootu Seydi El Hadji Omar bi maa ngi koy nuyu di ko siyaare ñoo ànd dëgg gàmm daaru salaam ba fii waaye bu ma nuyooyee war naa ko nuyu maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd may ko wér ndax bu may taxaw fii da wax ci dara jaam la ci baaxam la ci xoyofam la ci yëg ku may àndat la ndax fii wax dëgg yàlla manoon naa fi ñàkk wax waaye su ma taxawee di wax ci dara jaam ci laay wax ci ak matam ci laay wax ci ak bëgg ma ngóob ma ndég kóllëre ci laay wax kon danaa ko gërëm danaa ko sant ci kanam mbooloo mi ñëpp di ko ñaanal yàlla may ko fanu gudd may ko wér gannaaw bu loolu wooyee ñu ngi sant yàlla bu baax da julli ci Seydina Muhammad